laa ilaaha la ilaaha illallah laa La ilaha la la إله إلا الله لا إله إلا الله لا mbokk yi tey ñu ngi fii ci kër soxna Barakatu Bousso ñu kër soxna Moominatu Mbàkke bintu Xaadim ci doomam ji nga xam ne dafa wàcc liggéey di soxna Barakatu Bousso ñu di ko jaale ñëpp Maître Madické Niang nag ñëw fi nii bokk ci taalibe Serigne Touba yi amoon ak kër gi tamit ak wëllëre léegi la ko soxna Bali di wax ne ko kër gi sa loxo jógu ci te it ak taalibe rek la fi wane ñu bëggoon mu sànni ay kàddu ci soxna si su tedd si nga xam ne moo fi bàyyi ko. Euh, maa ngi nuyu ñëpp di dellu di feddali sunu ñébbal dellu di ziar suñ mun taxaata di ka ñaanal mu yàgg fi loolu te wér maa ngi nuyu soxna Bali bu baax a baax sama diggante kër gi moom dafa yàgg lool sëñ Abdou Aziz Baara moom ma jëkk dugal si kër gi benn bés dafa ma jox ay yóbbante ne ma naa ko indil soxna gaat ndax moom sama waajur la woon sëñ Cheikh Sidi Maxtaar sax mu may sunu benn toogaay mu may wax ni ma man lu ma mas jàppoon moo doon taalibe sëñ Abdou Aziz nga si diggante bi laay soog a xam ni waa kër sëñ Massamba nga ma ni que nag moom dafa sori woon sama xol lool ba ñëpp xamam xam maak moom bi may jëkk dugg si dëkk kër gi moom moo ma fi yónni jox ma ay yóbbante ni ma joxal ma ko soxna gàddu soo demee nga santal ma ko nga gërëmal ma ko mu teg si ni moom dafa jàmbaare lool te booba wax dëgg yàlla yàgg na lool kon ku seedeel loolu sa soxna boobu xam nga ni ngërëmam ak sa mbégte si moom moom nga doon fësal yàlla def si diggante bi sëñ Abdou Baaxi mi nga xam ni mooy sama lépp ndax mooy sama sëriñu waajur boole maak soxna si soxna Bali muy boole bu yàgg te mu féetale ma ak soxna si te soxna si féeteeg man bañ na ba sama doom bu jigéen bi ma am ak benn la ma am kaak sama soxna su tudd Adja Khoudia moom mi lan ko ndeyale nga xam ni moom digganteem ak man fu ko rek fu ñu rek weesu na moom ak soxna si fi jóge dan ma taxawu taxaw bu mat sëkk soxna si bi yàlla defee nguuru Abdoulaye Wade jeex bu président Macky sàll tàmbali coow li bëri mu dégg coow yu bari yu jëm si man maa ngi seddaloo sunu boroom ni am na si ay taxawaay yu bari si wàllu baatin wàllu dem wuti ñu mu yaakaar ni yàlla defal na leen dara mu wutal ma fa ay ñaan kon koo xam nga sori na si man lool su ñëwee Ndakaaru wala ma ñëw si kër gi bi ma fi mujj rek yàggul soxna si bi ma ñëwee booba mi may wax ne ma soxna si dafa xaw tëdd ma ne ko jarul nu déranger ko moom nag jukkoom yu rafet ba mu fi jógee ba tey wala bi moo dund sax ñépp ñëpp ku ko xam rek da ngay wax jukkoom bu rafet te ki nekk nag di ko xëccu di wax soxna si si man la gën sori waaye nag sunu borom ak dogalam te at yëpp mu tëdd kon dafa noppalu ji waaye gëm nañ ni dafa noppalu ji dëgg-dëgg ndax kat kuy sa waajur soxna moomu sëñ Tuba kuy sa waajur sëñ bu Buso mi nga xam ni moo jullee sëriñ bu mag bi ak ñëpp xam cëru sëñ bu Buso si yoonu murit ak si àddina bi yëpp ba pare ñu uufal la sa waajur sëñ Mbàkke so te ñëpp xam ni mu meloon si waajuram boobu kon wax dëgg yàlla suñu yaakaaroon na dëggu si moom lool yàlla nag sunu boroom yóbbu si firdaws rasulullahi su alayhi wasallam fi tànneefu sëñ Tuubaa yi gën a kawe nekk te mu nekk faag waajuram sëñ Mbàkke Buso ak soxna Moomi soxna mii nga xam ni moo nekk sama wet ñu ngi ñaan mu yàgg fi lool te wér saraxam yàgg lool si loxoom moom ak soxna Jami ak soxna maam Fati ak njaboot gi yëpp soxna Bali moom fu nu toll du nu sonn di yëkkati sunu kàddu di ko gërëm si jàpp gum nu jàpp ak fu mu nu teg sëñ du Baaxi ba mu nu boolee te mu doon sama cër ci kër sëñ du Baaxi wane naka ba mu mat sëkk yàlla nañu ko sëñ Touba fayal bu baax a baax maa ngi jaale ñépp soxna si moom lu waay wax si moom rek daa si bàyyi si ay ngëneelam ak si mbaaxam te kat man seetlu naa ni tëdd gi moo yàgg yàgg yëpp soo ñëwee soo ko gisee rek te kaaram nga dafay xam ni kii nangu na dogalu boromam te ku gëm ku gëm maamam la Cheikh Mat ba te ku bàyyeeg boppam sëñ tubaa la kon yàlla na dajeeg maamam Cheikh Mat Bamba jërëjëf. jërëjëf mbokk yi jërëjëf. waaw waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ngi nuyu bu baax mbokk yi bàyyi xel Tanime TV yëpp sëñ Saliou ñoo ngi leen di nuyu. di yëkkati ay kàddu cant ak kàddu yu ngërëm yoo xam ni soxna Bali bintu soxna moomi bintu xadim rasul moo koy delloo ñi nga xam ni kàddu yi mu ci waxal boppam rek dooy na di monsieur le ministre euh, nga xam ni yaakaar naa ñëpp xam nañ taxawaayam maître Madické Niang waaye ñëpp xam nañ digganteem ak soxna Bali ñun ñi juddoo fi kanamam muy sunu lépp xam nañ bu baax fi mu ko teg xam nañ itam fi ko soxna si teg di nuyu bu baax a baax sunu kilifa gi nga xam ne agsi na léegi muy Serigne Abdou Khadir Jili moom Cheikh Abdoul Khoudous moom boroom Darul Moxti ñëw fekke kon jàpp naa ni loolu seede su mag a mag la waaye itam doomam di xaritam di léppam di madame la ministre soxna Seynabou Ly Mbacké yaakaar naa moom itam cër bi monsieur le ministre am amin amin Mbacké bi rafet na loolu lool Mbacké jërëjëf yàlla nga fi yàgg déwén <laughs> waaw taxawaay bi monsieur le ministre am ci soxna si moom la madame la ministre mi am ci moom soxna si nag moo toll noonu ci jokk mbokk ci bëgg lu baax ci fonk ak nitam waaye monsieur le ministre soxna si ñun ñii ñëpp miin nañ sa tuur ak sa taxawaay ci moom jiitu na sunuy judd nun nun ñi nga xam ne moo nu yar waaye nag noppam ak boroom ci taxawaay bu mat sëkk boo ko yàgg taxawu lool néegul ba tey rek nga am sa taxawaay bii waaye booba du tey nga am taxawaay bu rafet lii mu wax nga xam ni booba ci année quatre-vingt yi la nga yor cent quatre-vingt-dix jàpp naa ne woote na ak léegi lii mu wax itam seede la nee na dafa façon ci xolom ni woote bi ñuy woote bu ñu àggee ci Maître Madické Niang moom du toog mukk pare ñu dama ko wax damay ñëw damay ñëw ci réew mi loolu nag fa lay hmm. dëgg la de dëgg la de yow nag la Cheikh Mahmoudul Moustapha sa ndijaay waxoon rek moom nga teg ci jëmm ji ba mu demee Njaarim wala Kaolack calayo ba ñu ni ko tee ngaa bàyyi tubaab bii ndax ñoom kat seen man-man ak seen coxorte dafa bari lool te coono yin teg sa wayjur gis nga ko ci jamono jumaa ji mu ni leen dey sama tànk bii bu ma ko tegee kam kama daan farma farma muy Serigne Touba Cheikhul Khadim France gépp nu ko bëggoon a yëngal mënuñu ko yëngal yow nag loolu nga teg ci kii moo tax jàpp naa ni am na loo xam ne ku ñuy woote di la tudd naan a politicien ngi ci réew mi mel moom la ko ci yàlla defal moo Cheikh Mamadul Muntaxa bu demee ba xam cër bi nga am ci Serigne Touba sañ laa digal sañ laa tere ba wax la li mu bëgg te loola nga jëf ko jàpp naa ni loolu doy na sëkk mandarga doy na sëkk médaille doy na sëkk garaat waaw te def nga ko bàddina bépp am mboolem mag ñi la ko tàmbalee ci maam Thierno Serigne Massamba maam Cheikh Anta sëñ Modou Lo Dagana boo ko dee wër ci mag ñëpp la tax a seex am ay dongo di dimbali ay nit am nga ko muy ngërëmul sëñ Touba Cheikh Mamadou xam mi mooy Serigne Touba te sant na la gërëm na la jë digal na la ci kanamu àddina bépp nga jëfe ko jëfin wu rafet loolu nag soxna Bali bii nga ci sagal sa teewaay bii tey bu amul woon itam soxna si xam na ni foo nekk yaa ngi ci xolam yaakaar naa mboolem ñu fi ñëw ca baas ba lañ ko fekk waaye yow nii mu def ak yow rek mooy wane yéene ji mu ci yow yàlla yàlla mottali yéen a jëpp yéen a jim am ci yow nag moom la ñim jabootu ñëpp am ci yow nee na itam mën na laa ñaanal waaye mi ngi sàkku nga ñaanal ko ndax man fekk naa la daaru karim magal gi jàll mboolem njabootu ma Masamba gépp am nga seen ngërëm te ab taalibe bu amee ngërëm mën naa ñaanal kilifaam ñaanal ko yan bii ko soxna barakatu bàyyee yàlla na woyof ci moom sunu borom mi ko yan téeñal ko te mboolem lu soxna si yéene woon ak lu soxna moomi xaadim yéene woon sunu borom sottal ko ci loxom bi mbàkke noo ngi lay ñaanal nga ndax maam baas mhm. maami Adja Khoudia mhm. ak yaayam mhm. ak ay doomi ndeyam ñoom ñëpp damaa jaxasoo ñoom la mag maami Adja Khoudia dama daan dem kër Mansour Mbaye asele dafa fekk maam baas moom mi waajuram daraan ñëw fii ci kër gi. Mhm. na ma man daan jënd sappo di soxna moom it. ndeysaan da jamono yi sëñ Mourou may di ko ko indi. Mhm. waaye nag yow. Mhm. dama ne sappo di ko. waaye bu may ñëw lu ma romb ndar lu baax rek dinaa ko jënd. ndeysaan loolu fa la yéene ma ne di ma fekk ba yàgg na. dëgg la dëgg la wallaay wallaay mag da ngaa baax rek mag waaw ñëpp rek ñëpp mm. ah? mm. mm. damaa jaxasoo yàgg na lool euh, monsieur le ministre euh, madame la ministre mi itam moom noo ngi lay seedeel taxawaay bu rafet ci wetu way juróom bii soxna si démb bi xew-xew bi amee léegi foo xoolee soxna si rek mi ngi toog ci wetam di ko taxawul gan ñi te ànd ak moom ak moom àddina bépp xam nañ ko te bi ngeen nuyoo ci baas bi rek xam naa amitié bi dox seen diggante ndax euh, kàddu day wax ay jëmm day wax kanam day wax te moom loolu la ko ñëpp seedeel alhamdulilah ngir borom ah. alhamdulilah mhm. moom li mu def ci man mënuma ko wax dëgg la dëgg la dëgg la rek laa ko bàyyi mhm. mhm. moom yëgu ko sax ñu wax ko ko rek mu daal yëkkati daal woo ma wallaay booba sax xaw ma numéro mu ne ma mën a ma sëy na bëgg ñu waxtaan mu ne ma sama tànk gaañoo fa lañ ma yóbbu damaa bëggoon nga ñëw ma wan boole laa ko ndax loxo bi booba tëdd naa ko ñaari at wallaahi ma di dem Dakar seet ko mu yóbbu ma ca docteur ba mu seet ko bind ordonnance mu dem jënd ordonnance jël xaalis bu bari boole ci ne demal ba rendez bi ñëw ma jël si la ma ñëw ndeysaan boobaak léegi loxo njugut déedéet mukk da xam ne def na ko ci man mm. barke Seexu Xadim Tanim TV